tey dañu ñëw tey fii ñëw fekk si joueur jaraaf yi fii ci seen terrain bi ñuy entraîner lu tax ñu def ko dañu ne il faut ñu dem gis xale yi féliciter leen encourager leen bañ a yem rek ci encadrement bi. parce que xale yi baax na léegi léegi nga di leen di fekk fa ñu nekk di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom. di wax rek ne ville de Dakar jox na leen subvention waaye commencement bi rek la te yaakaar nañ ne danañu gën a ànd ak yéen ci loolu. li ñuy joxe xeb nañ ko sax ñun waaye yaakar nañ ne résultat yi bu topé xam nga boy dimbali nit mu lay jox toujours satisfaction da ngay sawar ci di yok ndimbal bi kon lolo taxaw ñu ne nañ ñew tay féliciter leen pour sen victoire bu mujj bi waaye yeen itam wan leen ne danañ and ak yeen accompagner leen xalé yi waxtaan ak yeen ci lepp lo xamne ne bi war na ko mën a defal yi mu def ko fi nak sport la waaye du ci sport bi rek lañuy yem danañ leen dimbale dans le cadre du sport waaye aussi buñ leen dimbale ci leneen ci xam nga sport bi mun nga ci percer ba dem am ci xaalis am ci liggéey bu am solo waaye ma ne mairie Dakar encore dana taxaw taxawaay bi mu war a taxaw ci xale yi pour gunge leen ci seen àddina gunge leen ci lépp loo xam ne rek ñoom soxla nañ ko di félicité waat joueur yi pour seen victoire di leen wax ne nag ca kanam rek bu ngeen gënee am ay victoire dinañu gën a ànd ak yéen ci jàppale bi. subvention bi ñu ngi si ñu koy rafetlu bu baax parce que bon kenn mosuñu subventionné subvention bu day nii vraiment maire bi c'est vrai que mosuñu leen woon sollicité mais bi leen ko waxee ñoom def nañ ko bu gaaw gaaw gaaw ñun sax ni mu gaawee daf ñu bett xalaat sañu woon ne mën man ko wax ah, est-ce que nous avons chiffre bi ñu c'est vrai que daaw soutenir nañ hein, ah, ren aussi mais Rennes ils ont pratiquement euh, ils ont multiplié par 10. et c'est encourageant pour ñun club traditionnel yi bon c'est difficile parfois c'est vrai qu'on a les supporters on a tout mais parfois c'est difficile amuñu sponsor amuñu dara parfois ñu am sponsor yu ndaw yu ñu mais bon geste humain bi moom daf et ça nous droit ça nous droit euh, droit au cœur ça nous va droit au cœur et là on va euh, faire tout pour mériter ko quoi on va tout faire pour mériter quoi. parce que bon xam naa ne maire bi bu ñu gagné bu ñu gagné waatee dina yokk loxoom te ñun soxla nañ ko daal vraiment. moom seen ndorteelu équipe bi ci euh, Coupe CAF bi. waaw départ bu départ bon Coupe CAF bi départ pour le, pour le, la bu ñu gagné dimanche bu neexee yàlla dinañu bokkaat si course bi bon li ñuy aussi nous devons parce que c'est la première fois que nous nekk ce niveau

ñëpp am solo mais tamit ku génn rek sa morom na dugg keroog CNEPS gagné nañ CNEPS sans Pape am Pape Seydou ak ki nga xam mooy Madické kon semaine bi di ñëw aussi war nañ mën a gagné ñii di sal ñii di Salitas sans sans Sega Sega dafa gaañu dina am beneen xale boo xamante ni dina ko mën a remplacer waaw bu di semaine bi passe ñëw na entraînement gisante nañu waxtaan nañu yaakaar na ni moom euh, si weeru avril bi buy jeex daana war a mën a récupérer Bouly ndaxte ñëpp jàpp na ni Bouly attaquant bu baax la te gis na ni jaraaf manqué na ay bit comme soxla nañu attaquant yi fi nekk gum nii mais aussi soxla nañu ku mel ne Bouly ba nga xamante ni ñëwam dina nekk ñëw boo xam dina amal bénéfice équipe bi lool